dal leen ak jàmm téléspectateurs yu télévision Futurs Médias maanaam TFM am nañ ab nouvelle bu neex rawatina ñiy béggee Samba Sine ñu gën ko xam ci Kouthia ay fan rek bi ñu waxee ni dafa am jàngoro bii di coronavirus dem sonaloon ko lool ba mu mujjoon nekk ca réanimation maanaam ca Sowétas humoristu télévision Futurs Médias bi mu ngi am tan bu baax génn na ca réanimation ga mu nekkoon ginnaaw bi mu nekkee woon ci ab ab état bu doy waar lool ndax jabet gi mu amee woon borom Kouthia Show àndaat na ak mbégte ginnaaw bi mu retrouver ay espirem waaye tamit gis gi mu gisaat juróom ci ay collègue am mu doon liggéeyandool te nga xamante ni sax ñoom it dañ leen a testé woon positif Samba Sine alias Kouthia nag ab ka communautaire la maanaam mu ngi am jàngoro coronavirus gi te xamut ko ko wàll li le waral nag sax ba ñu bëri ci ay collaborateur am maanaam ñi muy liggéeyandal ñu defal leen ay test ngir saytu ba xam ñoom it amuñu coronavirus gi yooyu résultat nag dinañ ko xaarandi tey jii ci alxamis gi ci fàttali nag Kouthia moom mooy ñaareelu nit bi nga xamante ni am na coronavirus ci groupe Futurs Médias ginnaaw journaliste record bi di wuyoo ci turu Bakary Cissé moom mi ko njëkkoon a am ginnaaw ba mu jóge woon ab voyage foofee ca France xanaa rek ñuy wax alhamdulilah tey ñaanal suñu Kouthia national yàlla gën ko may tan ba mu dellu ca njabootam waaye tamit dellu ca liggéeyam continuer di bégal sénégalais yi comme ni mu ko tàmm di defee